maaleykum wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin wa radiallahu an baqiyati salaf wa qudwati alxalaf faxri diini walwatan mawlana alabd alxadim ahmadabni muhammadibni habibillah bokk jullit yi bokki taalib yi bokki réew mi ñu ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha al xalifatul aam li tariqatil muridiya xafidahu llahu taala wa raxaa wa wa zaada min nasrihi mu jëme ko ci mboolem bokk jullit yëpp ak bokki taalibe yi bokki yi nga xam ne ñoom la sañe digal sañ leen a tere jëme ko ci mboolem bokki julliteen yëpp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 yàlla na ko nangu li nga xam ne wattandiku loolu ko jiitam ci weer wi ndax dégg ngeen ci xadis ba la mu wax ndax weer koor dafa bokk ci farata yi yaa ayyuha lisina ma kutiba alaykum siyam kama kutiba ala lisina min qablikum waaye eh, dégg ngeen ci xadis bu mu wax ne man man lam yada xawla zuhuri wal amala bi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 di ci ndokkeel ñi nga xam ne ñoo la bokkal yoonu murid tam ni tamuy seen kilifa di ñaan itam suñ borom nanguñu ko ci pàttu Sëriñ Tuubaa di dellu si nag ci ay kàddu yoo xam ne sëriñ bi dafa waxoon ne nañ ko jëmee ci ñëpp kàddu yi ñaar ak la benn bi mooy fàttali bi ci mooy jotali ak cant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 alxuraan moo tax da cee gàll lu rëy képp koo xam ne rey nga bakkanu doomu aadama te tëyoo ko déyee dale caa war déyee ji nag téeméeri gileem lay doon bu dee góor bu dee jigéen nga joxe juróom fukki gileem te loolu ngir lislaam diisal gum ko diisal moo tax gàllu ko rek ki nga xam ne moo ko rey ko waaye ak njabootam faaw tànn ci lu ma nit ngir ñu génn déyee ja mooy li ngeen tuddee indemnité léegi tey kon loolu lu diis la ci suñ borom te loolu mooy ki nga xam ne téyu ko ki nga xam ne dafa rey bakkan doomu ko nag kooku moom benn at rek suñ borom wax mooy wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam képp ku rey bakkanu jil te ko kooku sawara képp la suñ borom wax ne fa la dëkk kon bakkanu doomu aadama lu diis la xam diis gi mu diis nag moo tax mu ne man xatal nafsan bi xëyri nafsin aw fasadin fil ardi fa kaannama xatal naas jamiian ku rey benn bakkan rek attab da ngaa faagaagal xel wi ci àdduna sépp ndax bakkan yëpp moo composé composé wu nekk àdduna kon benn bakkan boo ci rey rek mel na ne attab rey nga yëpp noonu loolu ñëpp war nañoo bàyyi xel ci.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 jihaad li tax fi ko lislaam di santaane mooy ngir nga défendre sa bopp wala ñu attaqué sa diine kon loolu boo ko see seetee atte boobu itam kon da ngay gisaat diisaay bi ba ca tool tool dollikuwaat mooy alalam alalam boo gisee lislaam santaane wasaarixu wasaarixtu faqtahu aydiyahuma aydiyahuma jasa dinaa kas moo tax mu santaane ku sàcc ñu dagg sa sa loxo ngir loolu itam bëgg koo aar ba ca mooy askanam boo gisee mu mu tere njaalo ngir bëgg ñu sàmmante askan yi loolu bokk na ci li nga xam ne euh, lislaam euh, da ko da ko da ko diisal kon loolu nañ xam ne lislaam lu diis la ci moom bakkara doomu aadama moo tax sëriñ bi nee na mi ngi fàttali loolu euh, julli bi di ko fàttali taalibe yi na ci ñëpp bàyyi xel lépp loo xam ne mën naa indi bakkan bu faatu wala mu indi fitna rek ñu ngi leen koy waxtaanee bu baax a baax te xam ne ku ko def ku ne sa bopp nga ko defal képp koo xam ne sàmmantu loolee itam bàkkaar ba suñ doon lam diggee woon dara mënu ko dindi kon sëriñ bi nee ñu ngi koy fàttali ñëpp di ñaan itam nag ñëpp gën a bàyyi xel ci loolu lépp lu mën a indi fitna rek ñu wattandi ko te xam bakkaru doomu aadama diisaay bi ak li ci nekk nee na kon loolu mu ngi wax ñëpp lu waaye man ci dellu si borom jéggulu ngir bàkkaar yi mën a wàññi ko dellu sa borom ngir yërmaande yàlla mën a wàcce waaye itam lépp lu waay mën a génne ci sarax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 njabootu ko Serigne bi ndax nee na xam na ne bi fi Cheikh Sidi Mokhtar bàyyi ko ba ndege ni bàyyi woon na fi ay sànc yu rëy muy jumaay Touba ji ak liggéeyam ba di ca Ndakaaru moom ci bopp mi tam ngir xam ne lépp loo xam ne taalibe yi am nañ ci doog Serigne Touba da leen ci fekk si mu somboor sombu rëy muy université yëg na ni nag ba mu ko tàmbalee ba ndege ni nit ñi ñu ngi ci def luñ mën ak luñ ci mënut. ba weesu na sax dama ko séntu woon kon la euh, kilifaam bu sa Cheikh Saliou ki daa wax rek ne joxe bi dafa jiitu laaj bi nee mi ngi sant euh, ñi nga xam ne ñoo njabaru Serigne Touba di sant mboolem seex yi nga xam ne kenn ku ci ne la nga yor Serigne yéeg nañ ni nag bi mu wootee liggéeyu Serigne Touba ñëpp bàyyi nañ seen i dem ci liggéeyu Serigne na kon nee na Serigne mi nga xam ne moo tax ngeen koy jëf.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 jàmm li ko mën a indi mooy kenn ku ci ne lala war sa digg sa morom nga sàmmante ko ci àq ak ak warmaal ko waaye nag bu fekkente ne da ngaa warmaal sa bopp nungoo ko tudd ba xam ne wóoral duñ say nawle duñ say morom lu la neex xëpp leen loolu bu yàggee bu jàmm jëkkee du fa mujj. Hmm. kon loolu itam ñu ngi bàyyi la xel ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne loolu ci seen loxo lay jaar. yéen itam ngeen ci bàyyi xel ndax am na ci loo xam ne bu ko nit indee jëmee ko ci yow mu wóolandi ak yàqare te amul amul njariñ loolu boo ko jàllalee itam yéen yaar yéen yow ba mm-hmm. te in jaayakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu alxuraan dafa wax ne buñ la joxee benn information na nga ko vérifier ba xam ndax liñ la wax dëgg la déet mm-hmm. ndax euh, lam cee bañ euh, fatabayyanu an tusiibu qawman bi jahaalatin fa tusbihu alaa maa fa'altum naadimin mooy bañ nga joxe benn. information boo dee ba ci mujj nga xam lañ la waxoon ñor loolu doomu aadama war na koy sàmmante ci diggam ak boromam waaye war na koy sàmmante diggam ak ay nawleewu doomu aadama. Hmm. ñu ngi leen di nuyu leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala